taalibe bu am xam-xam ak taalibe bu amul yar. mu ne bu ñaar yëpp mënee ñëw na ñëw waaye bu benn naree des àll na ab yar jiitu ndax ki amul yar bu ñëwee nga def ci moom xam-xam def ci moom diine. taalibe bu am diine ku am diine te amul yar sax kenn soxlawu ko. kon ministère bi ñu tuddee ministère de l' éducation nationale. dafa am lu ñu ko sas. benn bi mooy jàngal nit ki ba mu gindiku. waaye yar ko loolu la ñuy wax tarbiya. xam nga baatu tarbiya moom moo commencé di génn. ndax boo ko tuddee baat bi xaw a arabe. waaye tàggat lañ ko daan tuddee ñun moo tax ñu daan dugal gone ci lël léegi tey jii mën naa nekk nan la mën a nekke mooy que ñu xam ne jàngalekat bi liñ ko sant mission biñ ko jox mooy defar nit du joxe rek xam-xam mais defar defar nit boo defaree nit ki yett ko ba nga xam ne nit ki baax na nga jël comptabilité def ci moom boo ko yettee ba jikko yi rafet mu xam ne warta fen warta sàcc warta njublang warta wuruj warta lekk ger ba yooyu dugg ci moom ba noppi nga jël xam-xamu wàññu xaalis nag teg ci moom boo ko tegee ci keesu banque du ko jël boo ko defee ministre du détourné bu fekkente ne nag da ngaa jiital rek def ci moom xam-xam yoo xam ne ay xam-xam la yoo xam ne jikko jiitu jiitalu ko ngor ci boppam moom mooy xaw a te gis nga boo lalee sa ngor sa jëf day gore loolu nag moom moo tax ministère bi Euh, ñu tuddee ko éducation nationale. Mm-hmm. waaye instruction bi maanaam wutal xam-xam am diplôme wutal diplôme am liggéey. Mm-hmm. moom mooy indi tey nit mën a dem sol mbubbum jigéen jamono ju ñu xeexee góor mm-hmm. jigéen góor mën a sol mbubbum jigéen dem ne da koy wuti nu mu ko amee baax na. mooy am tey ci BFM bi la ñuy wax ne am na Tamba ci collège Jean 23. am fa nit dem jigéen ne day fa day fa BFM tàntam ngir kook am ko maanaam noo amee baax na. gis nga ku seexlu bëri alal danoo war a defar nit ñuy seexlu. nit koo xam ne day seexloo wax lu dul dëgg nit koo xam ne day seexloo jël lu moomut nit koo xam ne day seexloo tooñ nit koo xam ne bu nu defaree ci école bi nit ñooñu ba noppi defar leen ci daara ji nag soog a nag jël xam-xam jox leen ndax xam-xam li koy téye mooy kersa ak jom kersa ak jom bu ko nit ki xamee am ngor boo ko joxee xam-xam dana ko jëfandikoo kooku du jël alxuraan mukk guddi di ko dëpp ngir liggéey nit kooko du jël ay ay produits chimiques. Mhm. di ko lijjanti pour mu nekk drogue. waaye da mhm. koy def ay doom muy faj nit ñi. Mhm. ndax lii defar drogue moom mooy defar. garab gi mooy defar vaccin bi ñuy ñàkk tey. kon nag loolu nag moo tax ñu war a xàmmee ne éducation. ak ak instruction du benn. damay wax sax ne yenn saa yi instruction bi dañ koy fàtte sax waxoon naa ko fi ba ne dañuy indi élevage. maanaam li lay li la ñor mooy jox sa doom mu lekk mu naan mu tëdd nga dugal ko ci ci daara. déedéet dañ la nga defar nit. defaral nit. ndax dee bàyyi fi lu mat dee bàyyi fi ku mat da koo gën loolu nag moom mooy différence bi aujourd'hui nañu dellu ci valeur éducation yi nga xam ne boo daan seen sa maître da ngay daw nga xam ne bu professeur bi daan dugg classe te moom it nag na am taxawaay bi taxawaay ba mu daan taxaw moom jàngalekat bu ko élève bu xoolee bëgg a nekk jàngalekat foofu la war a delluwaat. mais lu tax loolu dañ tamit. waa li ko indi mooy dafa bëri. Mhm. li ko indi dafa bëri danoo dem ba mujj euh, léegi alal dañ ko jiital. Mhm. te léegi soxlawoo jàng pour am alal ndax ñi fi mhm. ëpp alal du ñu ëpp diplôme. dañ naan dañ koy lijjanti sax. waaw dañ koy lijjanti waaye nag nee naa alal moom ku ko lijjanti. ba jot si. boo moytuwul nit dana lijjanti ba nga génn ci barab. loola nag lu ko daan indi mooy euh, modelu xam-xam lañ daan am maanaam da nga daan am euh, selbe selbe bi mooy professeur bi mooy maître bi mooy ki lay jàngal alxuraan selbe boobu nag dañ daan tànn jikkoom dañ wala def ne wax ma ku la yar ma wax la sa jikko loolu wala fa wax ndax day xool nit ne ko yow doo sàcc doo fen téye nga sa làmmiñ sa tànk gudd loolu la ko wolof di wax mm-hmm. ne ko léegi yóbbu ma ci ki la yar mm-hmm. ñu tànn kooku nag xam ne moo dàq yar ñu jël gone yi jox ko mm-hmm. bu nu tànnee nag ki nga xam ne ci tànneenu jàngalekat yi ñu tànn ki jikkoom rafet tànn ki xelam rafet tànn ki xolam rafet ne leen kaay leen ngeen jàngale bàyyi leen nag ak gone yi ndax gone gi tey munoo ko jox jàngalekat bi ne ko na ko jàngale te jàngalekat bi bu ko gëddee bu gone gi ñëwee ne da nga ko gëdd yow waajur wi nga taal sa oto dem xulóog jàngalekat bi wala sax dóor song ko waaw dóor jàngalekat gis nañ ko fi loolu nag li ko indi mooy xam-xam la ñu tuxal mm. dañoo jël place su xam-xam ñu teg fa am-am mm-hmm. gis nga réew bu jëlee am-am teg ko ci kaw xam-xam mm-hmm. réew moomu na la leer na lu ñu bëri bëri ay pexe réew moomu du jëm mukk kanam mm-hmm. ndax nit ñi ci xëccoo la ñuy doon la ñuy nekk du ñu nekk ci ànd liggéey wax nga ko junj nga ko waajur yi tamit kër ga dañu am rôle dañu am taxawaay mais dafa mel ni ni ngay wax léegi euh, waajur yi dañuy daw ba dañoo batale yar gi ak euh, ñoo xam ni matuñu ko ñoom it ndax excuse u jamono ak wuti pour indi ci kër gi mën na mën mën na mën na nekk lay bu taxaw. non lay boobu moom teguwul fenn xam nga layu damay taluma sama njaboot damay liggéey lu tax ngay daw. Mm-hmm. dañ la tuddee dañ la tuddee njaboot nga mm-hmm. boot. Mm-hmm. nga boot. yaa war a boot. yow nga ne ñoom ñoo tax doo nelawoon. Mm. waaye nag yow amoo jotu yow fajar xool sa doom nu mel amoo jotu ngoon bala muy tëdd xool nu mel amoo jotu sax dem xool ka koy jàngal ba xamante ne moom. Mm-hmm. da ngay gis xale bu jàng sixième ba ba ba cm kenn waajuram du xam ku koy jàngal nu mu tudd. Mm-hmm. lan la ñuy daw ci àdduna bi. Mm-hmm. lan la ñuy daw alal la ñuy daw alal ngir lan alal ngir teraanga. teraanga weesuwut yàlla may la doom. teraanga weesuwut yàlla may la wërsëg. am na koo xam ne amut doom waaye bëri nay doom ndax ma nga ubbi pouponnière pouponnière ku nu sànni mu fortee kooku boo xoolee ci moom da nga xam ne daw ba taloo sa njaboot daw ci maali foro la xam nga am na xel yoo xam ne amul njariñ xel yi am njariñ mooy xel yoo xam ne dangay ngay xëy di liggéey waaye li ngay liggéey alal ji danga am jotu defar ci nit mm. nit ki nga war a njëkk a defar nag mooy sa doom waaye lay moom aw ma jot Euh, dakaar daw bi dafa métti aw ma jot bàyyi daw bi te téye say doom ndax boo dee yàlla xam ne lu mu lay attee mooy njaboot gi ma la dénkoon loo def ci ñoom. Mm. def naa ne nag am nga responsabilité defar ay doom yoo xam ne duñu yàq société bi amit responsabilité yow ci sa bopp liggéeyal société bi la defar ba nga nite nga liggéey ay doom yoo xam ne dañuy dañuy nite waaye doom nañ koy liggéeyee mooy dañ koy jël comme un projet léegi nag loolu moom mooy jafe-jafe waaye layoo moom taxawut moom. alors professeur euh, ñu wax tuuti ci euh, tolluwaayu mbas mi it euh, gis nañ ni kaa yi yokku na dee yi yokku na mais ba léegi am na ñoo xam ne ñu ngi jiixi jaax loolu tamit naka naka ko xel ma ne nangu. waaw xam nga réew mi mooy réew mu doy waar tey boo xoolee vaccin yi ñàkk yi. Mm, mm. amul kenn ci ñun koo xam ne boo xoolee përëgëm mi fii boo mm. xalee fii loxoom bi fii. Ah. doo fa fekk màndargam ñàkk. amul kenn ci koo xam ne bu la docteur bi tere xorom. doo ko bàyyi. Mm. bu la teree suukar doo ko bàyyi. bu na la del dox fajar sax boo daan biddanti da ngay yeew dox mm-hmm. fajar ndax bañ a dee. Mm-hmm. waaye ñooña tey mënuma nangu nga taxaw yow ki bëgg sa wér gu yaram waat ne def ko bëgg. Mm-hmm. taxaw ne la kaay faju nga ne ko duma faju li ko indi nag mooy ñun suñ bopp. dañuy def lu ñuy dugg dañuy bàyyi suñ aada ak suñ cosaan. wax naa ko ci njëlbéen ga ba ñu commencé di yenn nii ci mbas mi. man na nañ leen ko waxee nun ko déggee. bu leen ko waxee nu ko déggee danañ ci ànd. niñ ko bëggee. waaye bu ñu jëlee méthode de communication wu tubaab yi. yooye gis nga sëñ Sam danaan wax yàlla yàlla yokk leeram wax bu jógee ci xol ci xol lay jëm. lay mhm. jëm ñun ay nitu émotion mhm. lañ dañuy dañuy suñu yaram bu dawee rek. Mhm. mën nga ñoo wax. lu ñu dégg. géwél bi sax bu bëggee dara ci ñun day wax ba suñu yaram daw. waaye am na jamono yoo xam ne nit ñi fii nu toll nii mbas mi di gën a yokk. armeel yi keroog dem naa armeel yi bàq ya bëgg dugg ab ñu ne ma bu dee ci ndeyjoor nga jëm oto mënatu faa dugg ndax fees na suba teel li ma lay wax nii matagul fukki fan ak juróom démb rob naa sama nijaay maa ngi koy jaale euh, képp kuy syndicaliste muy euh, El Hadj Samba Guissé. ñëpp xam nañu waaw. kon tey mbas mii ñuy wax nii am na ñu ciy dee am na ñu ci deewul waaye rob bi bëri na mhm. jaale bi bëri na. Mhm. léegi lan moo tax tey ba tey boo rombee nit ñi duñ takk masque. Mhm. loolu problème bu problème mu bu bu xel mënut a nangu la. kon wax ji tey mooy kenn du gëdd nit ñi du yuuxu nit ñi du xas nit ñi mm-hmm. mooy waxtaan ak ñoom ba ñu xam mm-hmm. am na xale bu ma waxal tey dama ne ko yow mënumaa nangu nga bañ a takk masque ndax fi ngay liggéeyee mm-hmm. ki ko jiitee moom am na corona ba wér te moom moom ngay liggéeyal lan moo tax doo takk masque maanaam ma ne ko nag masque day rey xale yi masque du rey xale yi waaye corona day rey xale yi ma ne ko gisagoo képp kenn ko takk masque ba dee waaye gis nga ku takkul masque ba dee defe naa ne loolu mooy wax ji gën a sensibiliser nit ñi euh, bàyyi jaru ñuy gëdd jaru ñuy yuuxante gis nga xam nga lu ma mënta dégg diwoo ko indi diwoo ko indi fii ku ne def nga fi lu tax mbas mi ñëw fi mhm. ku ne def nga lu tax mbas mi toog fi mhm. donte am na ñu doon góorgóorlu pour mbas mi dem mhm. ngénte yaa ngi fi woon ñuy dem ak ñëw di takki baas baas ba lu ne lañ ci daan def kenn ku ne ci ñun benn benn jamono yaccaaral nga wàccee say loxo muy côté nguur gi muy côté société bi. responsabilité bu nekk bi nag nguur gi na reprendre système de communication. reprendre ko nag assumer. comme ni ñu koy defee nii actuellement reprendre mais ñu ñu wax ak nit ñi. te ñi war a wax nanu wax. waaw est-ce que tamit du beneen problème a ngi noonu ñi waroon a déglu est-ce que du ñoom ñoo nekk di wax léegi. waaw xam nga mbir moom Sénégal dafay def lu jóg rek. ñi ni jox micro ñeent lañ. ki mer te kenn xamul lu tax mu mer. ki mer nit te kenn xamul lu mu ko def. ki bëgg siiw. ak ki ñàkk kersa. ñeent ñooñu la ñuy wax lu léegi. mbir nag bu jotee dañuy xool ñetti xam dara ñu wax leen. ñu wax loo leen. bu nu bàyyi woon borom xam-xam yi rek ñu wax ak nit ñi. médecin bi nga xam ne kenn wóoluwut sa góor sa jabar góor di wéet ak moom. waaye médecin bi dangay ñëw muy góor na yow nga bàyyi kook sa soxna mu tëjoog moom. kooku bu ñu leen bàyyi woon ci njëlbeen nga ñoom rek ñu bàyyi leen ko ñuy wax. ñi nga xam ne nit ñi gëm lañ ne muy xalif généraux yi ñi nga xam ne ñooy communicateurs yi nga xam ne mm-hmm. seen baat tuxuwul ñu bàyyi leen ñuy wax relais communautaire yi ñu bàyyi leen ñu wax ak askan wi wax ji dana yomb mm-hmm. waaye benn jamono nag wax ji dafa bëri te bu wax bu coow bëree dëgg réel mm-hmm. dëgg la euh, donc euh, xanaa xëy na lu ñuy tàggoo rek ndax euh, waxtu daat ñu te doyaluñu niñ la wax mbirum diine la ñu tàmbaleek ñaari jëmm yu tedd yi dëddu waaye mënuñu ci woon a rax lii ñu ci rax mhm. ndax seen dund ni nga ko waxee jàngale la woon ñu ñu tàggoo foofu xëy na message boo xam ni di nga ko dëxëñ euh, yóbbante ko sunu mbokk senegal waaw ñoom xalif yi leen wuutu laay ñaanal mhm. yàlla may leen ñu gudd fan te wér lool euh, di li ko jaale xalif yi fi nekk yëpp di ko mhm. jaale di jaale waa Cambérène di jaale waa waa Ceneba euh, di wax ne kenn ku ne ci ñun na dal ku jógee ci armeel war a xam ne yaa ci topp wolof nee na ku lekk yàpp wunu rey julli ci ab der tëdd nelaw ba yàndoor war ngaa xoolaat sa bopp ndax yàpp wi nga reeree bakkan bu dee la der bi nga tëdd ku doon dund la tey jii dee gi bëri na réew mi fitna yi bëri na coow li bëri na xasante bi bëri na sutura bi bëri na génnee lu nit di làq bëri na nañu delluwaat ci yàlla delluwaat ci valeur yi nga xam ne mooy kersa jum te ni ma koy waxee rek lépp looy def nay rafet. lépp looy def nay rafet. xol yi nay rafet jëf ji nay rafet yéene yi nay rafet kàddu yi nay rafet tolluwaay yi nay rafet. te xoolal fi muy yamook euh, altine lañu ko def àllarba bi bu ma juumul la yamook sëñ Muntaxa woote bi. waaw sëñ Muntaxa li mu woote mooy. xasida waaw xasida yooyu mu woote nee na fu nit toog na ko fa def. Mhm. waaye xasida yi booy xool euh, boo demee Libreville dem Gabon. sëñ Tuubaa lu mu wax ne moom fa la fa ko amee. Mhm. ci ay de la ko def. Mhm. kon euh, ñu def ko ñoom euh, altine. Mhm. àllarba sëñ Muntaxa woote. nañu nag ñi ñi ñi am ay seen biir nan fexe ba am jàmm. ndax nag fi mu ne ñun ñëppay dee. te lu fi nit xëccoo boo dee dañ koy fàtte. jërëjëf vraiment docteur euh, Massamba Gueye ñu ngi lay gërëm di la sant ci wuyu wuyu bi di fëddaliwaat suñu jaal askanu Sénégal umma islamique bi yëpp ci ñaari jëmm yu tedd yi dëddu di leen gërëm di leen sant fi léegi tuuti Mouhamed euh, Mamadou Mouhamed Ndiaye euh, borom tur bu tedd bi incha allah dina fi teew faram ci kàllaamay wolof xibaaru marax yi jërë ngeen jëf.